alors euh, ñu ngi ak euh, directeur technique national basket bu yees bi di Moustapha Gaye ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal gannaaw ba nga accepté suñu invitation. maa ngi leen ñu gërëm di nuyu auditeurs réew mi bi yëpp. Mhm. Euh, di kontaan lool ci invitation bi. Mhm. très bien alors coach est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci sa nomination ni mu demee waxtaan yi amoon diggante yow ak fédération basket bi. waaw dafa président Babacar Ndiaye daf ma invité waxtaan. Mhm. ma ji ko ñu échanger mu proposé ma ko. bi euh, ñu xóotalee waxtaan bi ma accepté poste bi. Euh, ñu adressé ko ministère ministère validé ko. donc euh, ko tënkee daal noonu la noonu la demee. Mhm. di remercier état bi di remercier fédération bi ci confiance bi ci man. Mhm. Moustapha Gueye nekk ci liggéeyam mu di directeur technique national bu basket loolee nag mën nañ ni aboutissement ci terrain bi li ko tàmbalee 1995 jaar ci sélectionneur adjoint wala sax ci poste titulaire bi mu di ab parcours bi nga xamante ni jàpp nañu ni dafa fees dale ki xaaxam donte nag am na benn succès ci côté bi. waaw yombul woon amoon na euh, ay jafe-jafe am na ay am na am na bànneex donc ñu ngi sant suñu borom. Mm-hmm. ñu fi bàyyee yombal ñu. suñu taxawaay ba may ñu xolu muñ. Mm-hmm. tey jii nga nekk directeur technique national loolu lan lay représenté ci yow. ah sacerdoce la que sas la. Mm-hmm. sas parce que bu ñu ma tànnee ci samay biir euh, nawle yu bari euh, jox ma raay yu toll loolu dama koy dama koy sant suñu di remercier ñi ma ñi mm-hmm. euh, xam ne liggéey bi yombul chantier bu rëy la mais. bu ci ñëpp jàppee yàlla mën a jàpp jàmm. liggéey bi yombul mais tàmbali na est-ce que mën nga ñu expliquer tuuti feuille de route direction technique nationale ci ñaari saison yi yu ñu dëgmal. ñaari at yi ñëw daal lu suñu sur priorité mooy euh, dellu si waat sélection de jeunes yi mooy U16 yi euh, xale yi am fukki at ak juróom-benn euh, ba ci fukki at ak juróom-ñett. moom mhm. ñu dellu si ci compétition internationale yi ndax loolu pour ñun dafa fondamental. Mhm. ensuite. Euh, améliorer formation des cadres bi jublu ci arbitrage bi euh, yokk arbitre fédéraux yi ensuite euh, au niveau de la deuxième division jéem a def une deuxième division d'élite mm-hmm. ñeneen dem de troisième division gérée par les ligues régionales def naa loolu daal mooy li xalaat en même temps essayer améliorer autant que possible résultat wu équipe nationale A très bien est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci attelage yu staff bi ci gaynde yu góor yi ak yu jigéen yi. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci tàmm yëpp ñu leen tàmm ci sur la base seen résultat wu ci ci seen ci seen club yi ci seen seen taxawaay ci basket bi. Mhm. Euh, ci équipe nationale garçon bi ñu ngi tànn Porfirio euh, Fisac mi nga xam ne ngi Saragosse mu jaaroon fi euh, te def liggéey bu rafet fa mu dëkk ba mu nekk. Mhm. puis assisté par Boniface bi nga xam ne assistant la fële ci NBA à Denver euh, après Mamadou Gueye Pa bi xam ne moom moo nekk sur le plan national peut-être euh, at yi weesu yëpp meilleur entraîneur sur le plan local garçon waaw loolu mooy kii bi jigéen ñi euh, man maa koy coacher ak El Hadj Mamou Thiam Diop ak Morick Fall ak Khady Diop. alors dañuy taxaw tuuti ci staffu jigéen yi wax nga ko sànq ci say kaddu en plus nga nekk DTN bi yow yaay tàggat gaynde jigéen ñi lu waral gooyee ndogal. dañ ma ko demandé. Mhm. fédération daf ma daf ma ko ñaan daf ma ko demandé ma ma jugé que mën naa rendre service ma accepté ci staff boobee gis nañ ci Morika Fall dañ ci taxaw tuuti moom mooy deuxième assistante ndax daanaka coow li xaw na bari ci loolee lan moo waral ndogal boobee nga jël Morika Fall mu doon sa deuxième assistante. xaw ma sax coow li bari parce que. Mhm. boo seetee liggéeyam ci at yi passé yi au niveau du DIC. parce mhm. que euh, ngir mhm. euh, man performance laay xool te boo seetee performance am ci at yi bi ñëw yi weesu. naa ne métti ko. Astou Ndiaye ñu tabbu ko mu doon manager loolee lan la mën a coppi. waaw comme yàlla def na man mii nekk directeur yi dama nar nekk en même temps entraîneur équipe bi. Euh, ma ut ku ma euh, ku ma yombalal suma liggéey donc manager manager euh, astu am na profil bi. Mhm. ndax bu ngeen ko lu ñu fàtte mooy c'est la seule joueuse. moom mooy seule joueuse bu nga xam ne def dem nekk champion WNBA. waxuma joué nekk champion WNBA. nekk plusieurs fois champion d'Afrique. nekk NBA Africa donc. elle a joué en Europe joué na partout donc Astou am na image am na background am na palmarès pour vraiment jouer le rôle de coordinateur de dans cette équipe de salle féminine. ci gaynde yu góor yi Port Frio Fisac de Diego daal di ñëwaat mën nga ñu wax tuuti ci choix boobee ndaxte jotoon na nekk ci Sénégal waaye ñàkk atteindre ay objectifs dañoo tekki woon ndombal tànkam. entraîneur bu mag la ah. entraîneur mag la malgré le fait que atteindre objectif am. di mhm. passé mais def na fi liggéey bu rafet te ñun apprécié nañu. Euh, impact bi mu amoon ci groupe bi apprécié wu nañu un peu euh, plan de jeu équipe bi ak gestion bi. Mhm. donc euh, man de j'ai pensé que delloo si ko. Mhm. ku xamoon équipe bi déjà moo gën a yomb dem uti koo xam ne dafay découvrir encore environnement bi mhm. donc loolu moo motiver vraiment le le de Porfirio mhm. alors Boniface Ndong joxe na accord de principe ngir doon premier adjoint bu Porfirio nomination waxoon nga ko sànq waxoon nga ko ba nga doon jono ak taskatu xabaar yi mi ngi dafa nekk sous réserve dafa am benn détail bu des bu ñu a régler est-ce que situation bi décanté na euh, jotagu jotaatu ko boobu Porfirio du disponible ci weeru novembre 2020 ak février 2021 ñaareelu adjoint mu di euh, Mamadou Gueye ñu naan ko paa bi moom mooy diriger équipe bi ci match qualification yi ci weeru février lan moo tax tabboo entraîneur bi nga xamante ni dina daal di euh, disponible ci saa si ngir jiite équipe bi. xam nga loolu jafe jafe na trop am ci monde bi léegi entraîneur bu mën a bu a gérer équipe nationale bi en plein temps. Mhm. mais euh, ñun suñu réew am nañu am nañu paa bi. Mhm. Euh, muy muy talent muy talent bu réel muy vraiment entraîneur bu am bu am euh, ginnaaw pour mën a yore équipe bi mais par rapport ak objectif immédiat. daal di gagné la Coupe d'Afrique ñun dañoo yaakaaroon ne dañuy wuti ku gën a ëpp expérience. ku gën a euh, am maturité ku gën am vécu pour mën a atteindre objectif bi parce que suñu expertise suñu talent bi ñu am mooy paa bi muy bëri face euh, pour mën nañoo war a protéger mooy teg ay conditions yoo xam ne suba bu ñu jël équipe bi dans les l' année prochaine ou dans les deux années à venir ñu gën a légitime alors 2021 AFCON parce que mbëbët objectif bi lan dem gagné ko wala dem nekk deuxième wala troisième wala wala cinquième wala cinquième mais lan mooy objectif. mais non Sénégal mënul permettre dem compétition africaine. leneen lu dul dem avant le meilleur résultat mhm. suñu mënee gagné mhm. la ñu wut. mais xam nañ moo tax nit ñi war a dal parce que xam ne du yomb. Mhm. Euh, mais daal dinañu jëf suñu matuwaay yëpp pour a am résultat bi gën a baax. incha allah membre euh, DTN bi ak sélectionneur yi dañoo am contrat wala ay pigiste lañu. non non ñun ñëpp ay pigiste lañu ndax loolu la ministère bi ak fédération bi. ñu nekk ay pigiste dañu waroon am contra mooy kuy liggéey toute l'année mooy am contrat xëy na xëy na dans le futur nañu on est tendre mais le moment je pense que configuration compétition africaine yi. Mm-hmm. Euh, permettre nit ñu travailler à à temps plein pour avoir des contrats tous les mois. Mm-hmm. ban euh, objectif la DTN bi assigné euh, ñiy tàggat gaynde yu góor yi ak gaynde yu jigéen yi. mooy avoir les meilleurs sa possibles. Mm-hmm. gagner wala euh, ay le meilleur sa possible daal. ñu ngi lay euh, jaajëfal di la ñaanal succès ci sa liggéey bi nga sumb. maa leen gërëm di nuyu auditeur réew mi bi yëpp leen euh, sàkku ñaam ci ci li ñu mbëbët nii. Mm-hmm. jërëjëf mbokk auditeur ñu fàttali ñu ngi nekkoon ak euh, Moustapha Guèye nekk directeur technique national basque bu yees doon itam ki nga xamante ni mooy tàggat gaynde yu jigéen yi jërë ngeen jëf.